Oui, c'est vrai. L'année scolaire 2019-2020 n'est une année qui est métier, pour l'éducation, mais pour le secteur. C'est vrai. C'est vrai. Donc, quand il y a eu le coronavirus, le secteur est tout à fait pour pouvoir rencontrer la fièvre. Ce qui fait que nous, dans l'éducation, le euh, ministère de l'éducation

ak euh, parents d'élèves yi ñëpp jàpp ci ñëpp jàpp ci ak partenaires sociaux yi ñëpp jàpp nañ ci ba boole seen seen doole ba loolu tax nañu am résultat yi ñëpp xam yi euh, ñëpp gis te mu doon ay résultats yu baax ci ci ci école sénégalaise xam nga préscolaire aussi ci système bi la bokk ci système bi la bokk donc euh, lépp lu laal yeneen classes yi laal na préscolaire Eh, ñun tam ci canal éducation amon nañ fa ben ben ben ben ben ben page bo xam euh comme ñu koy waxeetee eh, am nañ ben plage bo xamné ci lañuy aussi dérouler suñu suñu suñu suñu apprentissage te xale aussi doon ko seetaan doon participer aussi ci ci pour